fa tamit développement personnel. Mm-hmm. fekk fa gestion nan lay nit ki bu amee xaalisam nu koy gérer. gestion <laughs> mi ngi noonu fekk fa leen mm-hmm. beneen bi nga xam ne moom moo soxal jigéenu Sénégal waaye xamuñu nu mu koy defee mooy ban waxal. séduction sexualité. baax da auzu billaahi mina sheytaani rajiim wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wala alihi wa sahbihi wa man wala mbokk waa Femme Firdaws femme leader ñu ngi leen di wax asalaamaaleykum wa rahmatullah di leen nuyu di leen ziyaare di leen ñaanal jàmm di ko sàkku si yéen eh, di leen baalu àq tamit di leen eh, defal di leen jaajëfal tamit ci parcours bi nga xamante ni parcours bu gudd la depuis quatre mois yàlla dogal na ñu ngi ànd boobu ba tey dara ñaawu ci ngeen nekk ay nit yu patiente tamit nekk ay nit yu neex a jàngal ay nit yoo xamante ni vraiment mën nañ ne lépp liñ leen indil euh, jël ngeen ko d'une manière boo xamante ni euh, manière bu accueillante la ba tax na ci loolu tey ñu ngi leen fi dalal di yégal tamit ñëpp ñi nga xamante ni rek ñu ngi topp ci réseau yi muy YouTube wala Facebook wala Instagram wala TikTok ñu ngi leen di jaajëfal di leen yégal ni ah suñu cérémonie fin de formation la ndax euh, bu ñu fin de formation rek à chaque fois ñu débuté ci alhamdulilah rabbil alamin wala ñu débuté ci bismillahi rabbi euh, bismillahi rahmaani rahim war a jeexal ci alhamdulilah rabbil alamin ba yàlla suñu borom may ñu fekke tal ak mën-mën kon mënuñu lu dul sant yàlla sant leen tamit gërëm leen ci taxawaay bi nga xamante ni mooy taxawaay bu rafet bi ngeen taxawee. tey nag cérémonie bi du dara lu dul kumpa gi nga xamante ni mooy faral di dal ñi nga xam ne dañuy dégg formation. Euh, femme leader euh, femme firdaws te duñu xam lan mooy li nekk ci biir ñu bari dañuy dute comme niñ ko xamee ndax lii jar na dugg wala ndax euh, lii jar na fay xaalis ba tax na tey suñu femme leader yépp fas yéene teew fi ak ñun fas yéene ànd ak ñun raconter ñu brièvement ku nekk sa expérience ci parcours bi fan la la jëlee ak fan lala indi fan la la fekk lan nga ci jàng lu bees lan mooy tamit li nga xamante ni ci ñi nga xam ne ñu ngi woon ci Femme de première saison ak deuxième saison lan mooy li nga xam ne moom la ñu découvrir lu bees est-ce que am na lu bees ci première saison ak deuxième saison est-ce que am na euh, novité ce que am na tamit loo xamante ni nouveauté du moins wala loo xam ni lu ñu xamul woon la saison xam ko ci saison deux saison deux tamit bi ñu ñëwee par rapport ak rythme bi nga xam ne fekke nañ ko est-ce que am nañu compréhension comme il se gàttal mois témoignage yooyu rek lañuy xaar ci suñu euh, mbokk yi nga xamante ne ñoo fréquenté formation bi durant quatre mois ba mu jeex ñu bëggoon tamit euh, ku nekk rek wax sa expérience wax li nga xamante ni mooy li la fa neex li la fa yokku ak lépp rek en général ci lu jëm ci suñu wàllu liggéey da dañuy wax ni euh, liggéey bi man maay ki ko def tey su ma toogee di jaay li may li may li may jaay sama marchandise ku nekk mën na ne ah moom de le fait que mu moom ko moo tax mu koy décorer nii mais yéen ñi nga xamante ni yéen yéen a ko doon recevoir yéen a ko doon consommer tey euh, bëgg nañu am seen avis par rapport ak consommation boobu euh, sans xëy na euh, ñu yaatal trop mais ñu wax li nga xam ne mooy li l'essentiel ndax ku nekk rek boo duggee ci formation am na li nga doon xaar seen ay attentes lan ngeen ci doon xaar bi ngeen recevoir ba pare li ngeen doon xaar est-ce que am ngeen ko wala est-ce que amu ko wala est-ce que kawe na seen i njort kon lépp dafay dépendre rek. si kenn ku nekk parcours am mu daal di ñu koy wax euh, avant tout ñu ngi dalal Fatima Diouf Fatima Diouf ñu ngi lay comme yow da nga yàkkamti donc ñu ngi lay wax nga dalal jàmm euh, nga raconté ñu sa parcours parce que yow macha allah yaa ngi woon si femme leader numéro un yaa ngi tamit ci mm-hmm. saison numéro deux euh, numéro deux muy cinq dimension yi cinq dimensions yooyu ñu cité woon ci dimension spirituelle dimension personnelle professionnelle sociale sentimentale ñu bëgg a loolu yëpp bi nga ko évaluer entre daaw ak ren lan mooy li nga xamante ne rek mooy li ci bees li nga xam ne mooy li ci de ak lépp lu ci loo xamante ne rek <laughs> gis nga ko ci kon ñu bàyyi la nga daal di dal ak jàmm le reste ñu wax ci membre yi wa rahmatullah euh, maa ngi nuyu euh, sama sœur yi nekk ci panel bi yëpp di nuyu aussi tata Fatima Mohamed ak ñëpp ñu leen di nuyu mm-hmm. Euh, j'espère que yéen ñëpp yéen a ngi si jàmm. donc man maa sàkku woon teel a dugg rek. parce que damay nekk di def cours di 16 heures nii dama génn nii sax classe taxaw ci biti nii di wax. Mm-hmm. donc euh, par rapport ak suñu expérience euh, ñun moom dañ ciy sawar à tout moment di ci wax. parce que doon na loo xamante ne lu neex la boo koy wax sa sa xol dafay feex ci fi nga xam ne fa nga ñu jëlee. fi nga xam ne mm-hmm. fa nga ñu jëmee. mu doon loo xam ne daf ñoo jox instant bi la paix du cœur et celle de l'âme parce que man j'étais maa maa woon ci euh, saison bu njëkk bi muy négocier mhm. femme leader mhm. amoon ay problème ay problème problème problème si mbiru sëy un problème ci ci ci ci mbiru émotion comment gérer et cetera mais mhm. bi ma génnee ci négocier femme leader pour man mbir mi fa lay yem pour man sax man weer naa sax waaw pour man li ma bëggoon am naa ko ndekete am am na yeneen livre yu kawe kawe kawe yoo xam ne mu ngi ñuy xaar te xam naa it mm. suite bi noonu lay demee xam naa day gën di kawe rek yeneen formation gën di am solo waaw parce que bii nii mm. passé moom surtout avec les ennéagrammes noonu ennéatype yi moom mm. oh da ngay da ngay comprendre bu baax a baax a baax yow qui tu es comprendre aussi l'autre voilà comprendre aussi l'autre comprendre à travers l' éducation des enfants parce que tey jii métti na pour ñu yar suñuy doom mais lépp lu ñu jàngal loo xam ne bu ñu ko appliqué suñu suñu suñu sëy daf ñuy servir appliqué ko suñu suñuy doom daf ñuy servir mhm. mu loolu yoo xam ne y' rien de magie y' a rien de magie mais lépp mhm. c' est basé sur la science et la religion. macha allah parce que tey jii lépp man li ma gën a neex ci moom dama ko daan wax sax ma ne ko man li ma gën a neex ci jàngale bi ngay jàngale mooy ne yow xëy na sax ba nga koy jàng yaa ngi koy jàngee ci neneen mais boo ñu koy mm-hmm. indi da nga koy segg seggaat ko ba mu adapté wu à notre mm-hmm. religion nga doon ñu ko andit loolu doon doon loo xam ne dafa ma ci neex a neex nga xam ne ñun boobaa dañuy mm-hmm. sawar a jël dañuy mën a jël sans contrainte parce que tellement que euh, suñu religion daf ko nangu daf ko daf daf ko agréé ñu war koo mën a jël utiliser ko man moom ma gis ci ay pas ay ay yu am solo parce que man j'étais j'étais tellement émotive comme ni ma ko waxee woon démb man lu nekk dama ko doon jëlee à fond mais léegi xoolal alhamdulilah du ma du ma ko jëlee neen ba pare problème bu amee je sais mhm. gérer dama koy gérer sans pour sax moom ma ñëw wax ko donc mhm. loolu loolu léegi daf ma daf ma daf ma jàppale parce que bu njëkk ba problème moindre problème bu ma amaan rek dama laan contacté la mhm. Fatima wax a wax jooya jooya jooya ba dama doo ma chéri fam passé rongoñ defal nii defal defal nee xoolal je le gis résultat yi te en ce jàngal nañu ba nga xamante ne man fi mu ne nii mën naa gérer des problèmes sans pour autant que sax moom mu yëg ko parfois mhm. aussi nga gis tax nit am problème ci couple am wala si ay xaleem wala sax dans la vie sociale parce que néegu femme leader lépp la boole daa boole lépp bàyyiwul fenn bàyyiwul dans mhm. la vie dans la société bàyyiwul dans la famille bàyyiwul avec les enfants bàyyiwul à l'école intellectuellement bàyyiwul dara professionnel voilà <laughs> <laughs> waaw bàyyiwul ah. dara da ngay jàng sa diine comme sa parlement avec les doigts yi nga xam ne euh, Oustaz Ousmane Gueye mu ñu koy jox ñu leen di remercier aussi ñoom de tawxiid bi un kitaabu nikaax yoo xam ne dañ la koy jox yoo xam ne da lay leer ne lii doo ko gis feneen. vraiment doo ko gis feneen. voilà donc mu ne ñu am solo yoo xam ne ku jigéen gi daf ko war a mën a xam surtout ki nga xam ne xëy na marié gul mm-hmm. wala koo xam ne aussi marié na loo xam ne daal pour ñëpp daf ñuy servir ñun ñëpp donc ñu leen di remercier mm-hmm. aussi. sa admini ah, ñoom tata Jéja ñoom ta tata Xadi Jéju bàyyiwuñu kenn vraiment ñu ngi leen di remercier di kontaan bu baax a baax a baax. kontaan nañu kontaan nañu lool sa sa témoignage. yow man dama naan man dama naan dama naan man ak yow moom nekkatu sax xëy na coach coach ak ak mais dem nañ sax ba nga xamante ne sax mën na ñu ngi mel ni ñoo xam ne deret lañ bokk tellement que ñu ñu ñu attaché woo. ma ne ko ba bu doon baax. Mm-hmm. Mm-hmm. donc dëgg yàlla dépassé nañu entre ak ki ko ki muy coaché. waaye dem nañ sax ba mën naa ne sekk mag ak ndax te mm-hmm, am nañu ay liens yoo xamante ni. lien mm-hmm. yu solide yu yu mën nañ ne yu yu gën a profond sax entre mag ak rak waaw mi ngi noonu mi vraiment parce que man li may wax li Sénégal yaa fay sama assistante lépp lu jëm ci sama mm-hmm. wàllu économie yaa koy gérer kon xam nga loolu mm-hmm. dëgg yàlla uh-huh. confiance bi kase moo ko laal ndaxte xam nga doomu aadama boo économie pendant des années di ko dénk ay somme yu jéggi dayoo te foo ko fëggee heure boo ko fëggee mu du la ne xaaral ma ginnaaw suba wala ginnaawaat ak suba mu leen la ne kii sa xaalis mu ko denc laalu ko kon loolu. <laughs> dëgg bi di ko wax ndax nit tamit bu la defalee lu baax te laaju la ci fay laaju la ci euh, salaire. vraiment hmm. loolu dama naan euh, yombul ci jamono bi sincèrement hmm. yombul yombul. kon day wane ni rek euh, nit ki jóg rek ngir baax kooku lu ku ko rek la bëgg. waaw hmm. te dooleel ci boobu gis naa ni yaa ngi ci taxaw yaa ngi tamit am volonté. waaw mhm. li ci neex mooy kenn ku nekk ci yéen bu sañoon entourage am yëpp lay ñoon rek dugal la ci biir. wallaay dugal leen muy <laughs> <laughs> doon lu tuuti nag. waaw waaye yombul. parce que wallaay ndeysaan. Mhm. développement personnel ko ñamul doo mën a xam doo mën a comprendre ndax ñu bëri la ngeen mhm. expliquer mais duñu comprendre. mais une fois que ñu en boo ko ñamee moom da ngay dangay da ngay féex dara dootu la ñëw malati. wallaahi c'est ça l'essentiel dara dootu la suqati di la yóbbu da ngay féex. ñu kontaan ci lool wax dëgg yàlla duñu la téye ñu ko a ngi am après duñu la téye kon dañ lay jaajëfal rek waaw di wax soxna yi bu amee ku bëgg a yéeg ku bëgg a ñëw na na signalé loxoom Mouhamed kii ko Mouhamed yéegal ko moo bi micro mu commencé waaw allo waaleykum salaam wa rahmatulah présenté wu man la tuta man la doomu eh, yaayu Fatima. sama doom. <laughs> macha allah. man la man la yaayu sama doom. macha allah. salaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatulah ma Umu ñu ngi lay dalal waa. waa di wax bismillah nag. waa kii sama yaay la sama xarit la. damay ñëw ci privé bi des fois ma ni ko xam nga man maay coach nit ñi waaye man yaa may coach sama confidente. <laughs> déedéet boobu fekk na sama doom moo may defar boobu sama doom macha allah yàlla def eh, soxna Fatima ñu ngi lay nuyu di nuyu Mouhamad di nuyu waa femme leader yëpp ñi nekkoon ci bu bu njëkk baak ñii ñëpp ñu ngi nuyu ñëpp daal waaye di indi suñu contribution tey ci bés bi suñu clôture bi après quatre mois de mhm. formation macha allah mu nekk nag eh, formation boo xamante ne kaamil daal lañ ko mën wax ndax lépp basé wu alquran ak sunna loolu la ñuy njëkk wax mhm. cheikh yaa ngi ci biir ah di ñu jàngal tawxid di ñu jàngal mhm. fiq di ñu jàngalit eh, kitaabul nika mhm. am beneen cheikh boo xam ne moom moo ñuy defal eh, azkar yi di ñu ko jàngal ñuy tari boole Fatima nag ñëw moom macha allah bàyyiwul dara <laughs> Fatima daal moom moom dafay fekk ba mu mel ne taa umu macha allah am loo xamante ay lënt lënt la woon ci boppam lu yàgg yàgg yàgg. nekk ci biir njabootam nekk ci biir néegu sëyam ëwalan laay wax. Mm-hmm. waaye ba ma jotee ta ma ci moom. ñuy waxtaan yu bare mu di ma ko dindil. di ci jàppale bu baax a baax a baax. muy si privé wam boo demee si privé am dafay mel ne yow rek la am. boo ñëwee si groupe bi nga xamante ne moom la sos nga xam ne moom dam ka naan kaamil rek ndax. di nga fa fekk éducation des enfants. waaw fekk fa tamit développement personnel. Mhm. fekk fa gestion nan lay gérer nit ki bu amee xaalisam nu mu koy gérer. gestion familiale presque professionnelle. <laughs> mi ngi noonu fekk fa leen beneen bi nga xam ne moom moo soxal jigéenu Sénégal waaye ñu nun koy defee mooy ban waxal. séduction sexualité ah mi ngi noonu. waa jo jo xamante ne mooy mari de taali ku ah, bëgg daal mi ngi noonu 5D. ah jonge kuy déglu audio yi di déglu suñu clôture bi. soo uh-huh. bëggee parfairaat sa bopp. nekk koo xam ne da ngay am confiance ci sa bopp gën a defaraat sa bopp gëm sa bopp. Uh-huh. te ku gëmul sa bopp nag doo mën a sëy doo mën liggéey sa njaboot kooku moom ñun ñi ko mos ñun ñun ñi ko mos xam nañ lu mu doon te intérieur boobu ngay am lépp basé wu si tawhid ak sun alquran ak sunna macha allah Fatima daal ñun dañ lay ñaanal yàlla fu ñu toll yaa xam fa nga bëgg a àgg yàlla na nga fa lép lépp mënuñu ko wax fii ndax am na ñeneen ñu taxaw di xaar waaye daal ñuy woo na àddina bi yëpp la ñuy wax waxuñu sax sénégalais kese waaye képp kuy dégg audio bi waroon na nekk na ñu traduire ko si langue yëpp ndax <laughs> ñëpp la koy yéene ndax jigéen moom soo su baaxee société dafay baax dëgg la waaw te da ngay dem ba nga xam ne da ngay benn neex neexu xol boo xamante ne Fatima da nga koy yëkk sa biir xol yëkk si sa jaamu yàlla sa imaan gën yokk Fatima sa mm-hmm. kër neex ah sa njaboot di di di xale yi sax bëggoon naa ñu dugg ci ci biir kii bi ñoom jox indi seen kii ñoom sam seen contribution xam seen yaay nan nan nan la kii yee léegi avancement bi fi nga ko jëlee ak fi nga ko yóbbu macha allah Fatima ñu ngi lay ñaanal yàlla yàlla na la yàlla téyel boppam yàlla la yàlla taxaw yàlla na la yàlla aar fi nga bëgg àgg jeng yàlla na fa àgg yàlla la yàlla jàppale ñun léegi ay coaching lañ sax suñu waxtaan yëpp coaching la ñun léegi dañuy dangay waxtaan ak sa rakk wala sa mag wala sa entrage kenn ngay corcheté doo ko yëg suñu c'est-à-dire que changement boobu boo xamante ne du yow mënoo ko comprendre boo si dugalee mënoo ko comprendre ah, ñuy woo ñëpp nag mhm. mi ngi noonu ñuy woo ñëpp nag ci suñu formation yeneen yu ñëw na jigéen ñëpp dugg si na ñëpp kuy ut lu baax daal kuy ut lu baax te di ko mhm. ut te moom alquran ak sunna kese tax la jóg ak bëgg baax bëgg baaxal sa njaboot ak sa kër ak nag di woo célibataire yi nga xam ne tànnaguñu. yii ñooñu. ndax ñoom PN dañu bari si àdduna bi léegi de ñoom PN. <laughs> dañu bari si àdduna bi célibataire yi si jànq ji. ah, ah. ak ñi nga xam ne sëy nañu ba yàlla dogal sëyatun wala ñu nga xam ne moom sëy nekkuñu si kii bu ñuy tànn moom nan ñëw. Hmm. waaw yooyu yëpp a fi macha allah tabaraka rahman léegi mënuñu ko wax. dañ lay war eh? personnalité nit ñi. wan la ni boo mi ngi noonu mi ngi noonu da ngay mel ni ku dem loolu laay waxtaanee kenn sama xale soxna ma mooy loo xamante ne léegi da ngay da ngay dox nga gis nit xam ci bi ban blessure billahi te xam xamul nit ki la mu war waxee nan laa koy tonto waaye lii nag lii lii lii lii allah nag macha allah tabaraka rahman <laughs> nag yaa ñu ko defal nag yàlla ko jaarale sa loxo nga defal ñu ko. xam-xam ñun daal ñu ngi lay ñaanal yàlla di bàyyi. di bàyyi ñeneen ñi dugg si. di kontaan mënoon nañ toog di wax fii ba suba. yàlla na la yàlla ta yàlla na la yàlla taxaw. te xam ne sa yaay moom am na foo ko yëg jële am na foo ko yóbbu. te si positif la macha allah. yàlla na yàlla téyel ànd bi ba aljanna. plaisir la boo xamante ni vraiment dañ koy santé suñu borom ndax yàlla mi nga xamante ni moo ko jaarale suñu loxo. Eh, boole ñoog ay soxna yu kenn soxna yoo xamante ni koo ci xamanteel rek da ngay da ngay am lu la neex bànneex lay doon. dëgg la dëgg la day dem sax ba. waaw groupe boo xamante ñëpp a bokk coaching bi. waaw mais mm. teraanga yeeg mbokk geeg ñëpp ngay xamanteel ñoom daal yàlla ku ko liggéeyal doo fayeer yaa ko moom ñëpp ngay xamanteel wallaay wallaay wallaay jëng yaa ko moom lépp lu la def lépp lu la jigéenu femme Firdaws defar rek yaa ko moom ndax yaa ko ji booleen nag may wax naan loi d'attraction bañ fa jàng tamit loolu moom dafay wane waaw montu yu baax yi ñoo bokk heure waaw ñoo bokk ñu <laughs> ñoom la yàlla yàlla na yàlla teel suñu ànd bi boole ci ñeneen ñeneen ñëw ñu ñëpp ñëw daal na ñëpp ñëw macha allah ñu ngi wax nag salaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu waaleykum salaam wa kontaan nañu bu baax a baax bu amee keneen bëgg na ku am na ku bëgg a yéeg wala ku bëgg a ñëw ci participation bi waaw waaw asalaamaaleykum. waa da su da xaw a uh, da xaw a sori tuuti parce que. parce que dañuy si internet da ngay sori bu comme ça ñu bañ am confusion. mu ne. merci beaucoup. asalaamaaleykum wa rahmatulah. ndax coach macha allah yaa ngi def jongo moom nag fin bi di jekk na dafa tënk ko bëri <laughs> naa ñu ñëw rek bi eh, di am contentement mën naa ne sama dundee ba am confiance sama bopp ba ñeme taxaw di génnee samay dëgg ñeme taxaw di jàkkaarloog société bi ku wax sax daanaka su ma leeree ne sa wax eh, li ngay wax amul benn sens dama lay bàyyi nga dem dagg sant dégg yëpp ma arrêté. c'est grâce Fatou grâce à Fatouma Zahra macha allah. tàggeeji moom <laughs> nuyu e spécial laa koy beral ndax moom moom dama naan Fatima moom mooy coaching bi waaye privé bi noonu laa ko sonale boobu ci wàllu coaching bi su ma demee ba bàyyi dóor xale am yërmande ci xale bi téye xale di ko jéem waxtaanal di ko tax ci sama bopp c'est grâce à coaching bi nga xamante ne jàng naa su ma gisee léegi kuy dóor xale wala sama xol bi day taal ma jër wala sax nit di gëdd tellement dama dama yoroo xol ba dama daan topp xale di dóor di dóor di dóor ba des fois sax dama koy dóor ba gaañ ko. waaw lépp loo xam ne maa ngi koy witti tey mais grâce à Fatima ci la gis résultat yoo xamante ne nekk yoo xale mhm. ma ne ko ñàkk ñàkk comprendre peuple ñu ci bëri dañ jàpp ni xale rek mooy ki nga xamante ni euh, xale dañ ko mhm. war a mu mënuñu yar xale sans dóor xale man looloo ma gën a marqué formation bi ndax dama gis suñu éducation dóor xale rek alors que ndeke xale boo ko bëggee yar bëgg ko teg ci yoon bu baax di rek il faut xale bi ñeme la jege la man gis naa ndeke xale yu bëri li tax ñuy am séparation ak seen waajur rek lool la nekk loo xamante ne tey monde bi yëpp comme ni Tata Oumou waxee monde bi yëpp buñ ne Sénégal kese mais monde bi ñëpp ñëpp ko ko war a déglu surtout góor ñi surtout góor ñi war nañ di ko déglu bu baax parce que ñoom baat bi leen yàlla jox tax na ñoom jàpp na ni njaboot bi rek ñoom ñoo war nature doomu aadama moom du violence violence moom doo ko def nit ba pare mu lay bëgg kenn mënul di mbugal nit mu lay bëgg yaa xam sa doom la yaa xam sa xam lu mu doon nit ki danga koy jox lu baax lu baax loolu tax mu di la encore alhamdulilah en tout cas daal soxna Fatima gis naa samay feebar yëpp gis naa bopp yu métti yeeg tànk yeeg jàmbat bu bëri bi ba soxna Zeylan Cissé di ma xas fu ma toll léegi xam naa ne sama feebar li mu nekkoon yal na yàlla fay la lu bëree bëree bëri. macha moom mën naa ne macha allah maa ngi si yoon bi di jéem a góorgóorlu ndànk-ndànk te incha allah foo woote dinaa la fa fekk si foo ma gën a góorgóorlu ci. nekk nit koo xam ne daal loolu laa yàgg xeex daal doon ci ma bëgg daal voilà. di bàyyi ñëpp di nuyu di ziar ñëpp di leen baalu ak xarit bu baax. di jégalu tamit ci kàddu yi macha allah. ki mooy na Awa borom xeesaay bi macha allah. <laughs> also depuis Italie. donc merci beaucoup di la ziare bi wax ki keneen boo amee keneen ñi laan mu ne après dafa bëgg a dugg. asalaamaaleykum. asalaamaaleykum. waaleykum salaam. waaleykum salaam wa rahmatulah ñi laan. yéen ak jàmm. daa mel daa mel ne Xadi la de salaamaaleykum. waaw <laughs> waaw euh, su mën nga dem ma bàyyi la nga. boo paree waaw mën ngeen ñëw ñëpp xoolal bu ngeen bëggee mën ngeen ñëwandoo yéen ñaar ñëpp. ñëwandoor parce que Fatima ñun ñaar ñi liggéey ngo guddi ñu mën a dem préparé wu. Mm. ma bàyyi la loxo bi demal. <laughs> waaw d'accord. <laughs> asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu. maa di wa rahmatulah wa barakaatu. nuyu mbokku femme leader di Femme Firdawsa maa nag suñu coach bu ñaawul bi Fatima Zahra di ko ziar allah. di kontaan bu mu baax. nga de <laughs> comme d'habitude daal. Mm. Ah, man de damay continuer rek. ah dama naan sànniw ma sama xaalis parce que dugal naa ko foo xam ne lu may jariñ à long terme la te ngi changement di ko gis sama njaboot sama njaboot di ko gis sama borom kër di ko gis parce que jëlee nga ma fu sore sore sore macha allah depuis première saison ba léegi première saison mu génne naa ci japp ne xëy na comme ni maman mu doon sànq da ngay jàpp a ah tout va bien wér nga mais des fois nga jàkkanteeg yeneen problème nga sentir ne am na lu des loo war a fajaat donc boo duggee ci deuxième bi jàngaat yeneen yu bees mu leer la jàng du doy jàng du doy donc dañuy sant bu baax a baax bi ñu yàlla booleeg ñu jàng si yow lu baree bari ngay soppi suñuy jikko man nekkoon naa nit koo xam ne mën naa dem naa ba rendre compte que ne amoon na ay jikko yu toxique ci côté dépendance affective donc je savais pas aimer comme il fallait euh, bëgg sama bopp sax lu jafe woon na si man donc mu mm-hmm. doon loo xam ne daal euh, xëy na sama sëy mi ngi ci feeñ sama ni may mm-hmm. yoree sama njaboot mi ngi ci doon feeñ manque de confiance bu baree baree bari sonaloon ma donc loolu lépp loolu lépp nga dimbali ci man donc dama koy sant yàlla bu baax a baax a baax di continuer nag di faju parce que jàpp naa ne xëy na <laughs> ba tey mais Euh, bu ma nekkoon ci problème mën naa ne à à cent pour cent ah léegi dama naan xëy na di pour cent wa ci des donc damay sant yàlla bu baax a baax a baax wax dëgg yàlla sànni ma sama xaalis benn yoon dañ naan liñ la fay sax amuñu sa fay liñ la fay euh, sori na ci tuuti waaye sori na bu baax a baax li nga xam ne yow moom nga ñuy jox ci sa générosité di ñu jàngal dans tous les aspects oustaz yi tamit di ci participer bu baax a baax a baax affaire yi lépp nga teg ko ci tawhid donc gën ñoo suñu borom gën a jàng l'amour envers Allah la confiance envers Allah parce que loolu bu feesee sa xol rek lu bari lu ñëw koy mën a dékku nga jàngal ñu aussi xam nit bu baax a baax xam psychologie jigéen psychologie góor jàngal ñu xam ñun ñooy kan parce que boo xamee sa bop rek da ngay mën a gën a mën a jëflante ak nit ñi donc jàng xam yan yaay kan xam sa ay blessure aussi pour mën koo traiter mm-hmm. parce que nit day tëñax tëñaxe di dem rek fekk yaa ngi problème yoo ancré depuis ton enfance wala depuis sax depuis sax bañ la ëmbee boo moytul la la topp nga juddu loolu topp la topp la boo toogul taxaw taxaw taxaw xalaat ci rek da continuer di dem rek naan mais man lu tax je suis pas heureuse lu tax may jiñ ni lu baax ngay fay lu bon c'est que yooyu yaa am problème te xamoo ko voilà donc boo demee nag ba xam sa bopp xam yow yaay kan réellement loolu day changer sa jëflanteeg nit ñi te nit ñi dañ dañ koy sentir duñ mm-hmm. la gisee rek dañ naan yow mi am na lu soppeeku ci yow. Mm-hmm. liñ naan même sa borom kër sax des fois liñ naan ku def formation yi naa y' a pas photo <laughs> sa jëkkër bu la dina xam ne kii tànneef la ci tànneef yi bu la boole wo ak ay moroom ay moroomi jeeg tamit bu la xoolee dina ne yow tu es unique parmi tant d' autres donc loolu dafa doon la am solo donc mbokk soxna yi daal investir leen ci seen bopp parce que man ci sama bopp laa investir. Ah, bëgg am waaw mu ngi mooy investissement bu am solo bi investir sa bopp ci loo xam ne moo lay indil paix intérieur moo lay indil àjjanay xool loolu dafa am solo di dund àjjuna ci kaw suuf balaa ñu ñuy dee yal nañu ko yàlla may donc loolu laay ñaanal bépp soxna donc képp koo ne rek yaa am problème yoo xam ne mu ngi lay sonal monsieur Seyngu Seye mu ci tous les aspects de la vie xamal ne garab baa ngi fii ah Fatima Zahra la tudd <laughs> soriwul elle est accessible macha allah te du ngeen ko réccu daal mi ngi noonu. ñàkkal <laughs> fayda <laughs> comme ni nga ko waxee rek. Mm-hmm. coaching ni ko soxna yi ne ñun sa fait juste quelques jours mais on dirait que dañoo laal suñu parce que là. ah noonu de. <laughs> nga bari na ay information yu ñu la daan dugal nga jàpp ni say nii la joŋe nii la. njaboot nii lañ koy yaree yu bari yoo xam ne. voilà ay boo demee nag day mel ni yow dañ laa yeewaat ci bët nga ne xaay ba man nag maa ngi woon ci réer gu jéggi dayoo donc am na solo bu baax a baax daal que moo moo lay. lool moo lay conditionné mhm, ah, loolu dëgg la installé la application yu baax waaw muy noonu ñëw <laughs> la ba nga bees nga mel ne da ngaa judduwaat donc développement personnel renaissance la daal la lay renaissance effectivement renaissance nga découvrir aspect parce que li may wax à chaque fois euh, découvert de l' aspect xëy na aspect yi nga gënoon bëgg ci sa bopp te mënoo ko mhm. atteindre mu nekk impossible donc mhm, ah, laa mel mais mënuma ko extérioriser si si si rek côté bi nga xam ne mooy côté bi am blessure mooy génn da ngay xëcc sa masque blessure takk ko. waaw mu ngi noonu tey jii manière boo xam ne après du la neex. côté bi baax ci yow mun nga mun nga ci accéder une fois nga xam naka nga ciy accéder parce que li may wax rek yàlla suñu borom ni mu ñu bindee dafa complexe. Mhm. suñu ordinateur la rek. des fois di nga am mhm. ay système application yoo xam ne amoo ci soxla doo ko mës a génnee. mun nga ko mise à jour xëccaat ko mu génn. Mhm, désinstallé ordinateur tey bu feesee day ralentir day yéex. munoo dañ koy mhm. jël léegi énervé nit ñi c'est chose tey bu ñu la yaree ci ay toxicité wala sa environnement toxique mhm. wala nga am ay blessures ay mauvaises croyances da ngay ba mhm. dootul fonctionner comme il se doit képp ku nekk dañ koy gaañ damay faral di wax ni euh, nekk nit ki nga xamante ni tey xamoo sa bopp défaut développement personnel tu un danger pour les autres pour toi-même Mm-hmm. loolu moom dëgg la. Mm-hmm. da sa jëflante day gaañ ñeneen ñi da ngay gaañal sa bopp. Mm-hmm. loolu dëgg la nga arrivé découvrir les aspects la meilleure version de toi-même. da ngay am beneen vision du monde ba pare nag am joie de vivre am vouloir de vivre. daanaka ñoo xam comme pilote automatique rek. daanaka dafa yeewu di naan di nelaw. mu ngi noonu da ngay gis ni yow ndakate on dirait que yàlla suñu borom daf la sol essence boo xamante ne. waaw da énergie bu bees tàq tey boo xëyee da ngay sawar <laughs> ah loolu moom dëgg la dëgg la te dañ koy yëg bu baax a a baax. Mhm. mu ngi noonu confiance bi ngay am day tiital nit ñi sax parce que dañ naan mais kii moom elle se croit pour kii. waaw waaw. sécurité bi nekk ci biir. <laughs> sax ay laaf yu bees kay. <laughs> c'est na tiital waaw tu te mm-hmm. mm-hmm. mm-hmm. réconcilier ak sa bopp. xam euh, aspect yi xam tamit say fort. mettre ko en say faiblesse nga bañ ko rus accepter ko xam ni nga ah. nit nga def faiblesse da ngay jukko. mais képp ku laal sa faiblesse mais da nga mais man li <laughs> maa la ko gën a xam jaru sonn. li yow nii gën a xam. am naa sama bopp <laughs> donc sant yàlla macha <laughs> allah sant lay ñaana rek. fépp fu nga bëgg a jëm yal na la fa yàlla yeggale nga am lu kawe sa njort ñun daal kontaan nañ si yow ba mënuñoo wax buñ koy wax moom suñu xol day tooy parce que voilà da jële si sore sore sori macha allah mu ci groupe bi mu ci privé bi aussi donc sant yàlla ko ñilaan moom nekk nit ñu nit bu baax nit ku disponible accessible groupe à chaque <laughs> fois euh, cours bi moom mooy ki di ko réagir fois day bàyyi liggéeyam kenn du toog ba ñu toog ñilaan une semaine deux semaines dégguñu ko presque macha allah day joxe à fond. te loolu dafa mm. dafay neex a àndal ndax booy liggéey. Mm. ba pare ngay ànd ak koo xam dafa am volonté aller jusqu'au bout. loolu mm. dafa neex waaw. boole ko teraanga yi fii a ah. <laughs> liñ la defal xeeb nañ ko xinaa ko paketu Xadija Jeeju ah waa LR yi macha allah. liñ <laughs> defal yaa ko moom macha allah. koo xam ne vraiment yaa ngi defal yàlla da ngay gis ni rek euh, retour bi daal day neex ndax bu leen neexoon ah donc euh, li nga xamante ni moom a encombré ak yow rek mooy. Ah, ah. nga jox ma formation ba pare dem ah, liñ la fay dañ koo xeeb te dañ ñoo jox ba ñu doyoon sëkk di ñu jàng rek ci loi d'attraction yi ki moom loo ji rek moom ngay récolter donc yaa ko ji moo tax <laughs> sant yàlla bu baax ma bàyyi kàddu ga Khady. <laughs> salaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatulah. <laughs> yow maa la présenté yow maa ngi présenté la. man yow présenté. waaw kii moom Khadija Diédhiou la sama yaayu bopp laa koy woowee ndax sama yaay Khadija la tudd. ah nekk ki nga xamante ni mën naa ne bi ñuy xamante boobu xalaatuñu woon ne sa femme leader bés dina jot mu am. Mm-hmm, mm-hmm. loolu yàgg xamante xamante bu neex bu ànd ak sincérité mm-hmm. xamante bu mu nekk nit ku accessible disponible rafet xol xadi jeeju du mere kenn waaw munoo ko tey jii day ñëw wax la problème am nga wax ko ci loo xam ne sa amaana euh, mu ngi noonu lu foor la et tout mais quand même elle la vérité nit boo xamante ni dëgg nu mu mën a tool da koy nangu ci moom laa ko gisee te du vexé offensé wu waaw koo xam ne tout le mu ngi bëgg baax bokk na ci sama équipe waaw bokk sama équipe ñëw ba ca biir ne ma Fatima man mënuma liggéey ga damay jàng parce que man gis ni laa dama war jàng mu nekk loo xam ne tey modestie doomu aadama rek moo ko mën mu ne mu def comme ñëpp ah ñëw ne man maa ngi fi admin laa damay daagu daal di dalaas mais déedéet dafa ñëw ne man damay jàng kon loolu tamit déjà nekk na loo xam ne modestie la ak euh, bëgg xam-xam tamit kon mm. ñu wax chapeau à ah, di la wax nga yegg si <laughs> nga bokk ci sama équipe mm-hmm. waa équipe boo xamante ni mm-hmm. équipe bu complet bu performant muy ci mm-hmm. na yi vraiment awma seen fay yàlla rek moo leen di fay kon déglu ma chérie euh, bu ñu sante yàlla julli ci yonante bi euh, ñu ngi sant bu baax a baax a baax Fatima dinaan euh, comme ni ko ñëpp waxee dang ñoo jëli fu sori indi ñu fii waaw man de mën naa wax ne balaa ñu bokk sax euh, kii su jàppante tax te yàlla tax ñu commencé euh, fekk ñu xamante muur see après ñu ñëw ci jàppante fi nga xam ne on était que cinq balaa balaa foofu man am na ni ma meloon avant ma ñëw foofu foofu laa commencé jàng bi ci yéen ah mhm. ci yéen ngeen ma doon dañ doon wax kii wante di jàppalante di jàppalante man ki laa waxee ne ma ma commencé jàng foofu ba ma commencé jàng foofu yàlla def nga ne da ngay créer eh, whatsapp whatsapp bi néegu sëy un bu mu juddoo ma dugg fa nekk ci eh, équipe bi war a nekk administratif sax noonu di jàngale mais en même temps Euh, mënuma woon a dévoiler dévoiler wu mënuma woon tamit euh, jàng comme comme ñi nga xam ne dañoo ñëw jàng si léegi moo lu moo tax te foofu jotoon naa ci jàng ci sama problème bi nga xamante ne moom moo nekkoon manque de confiance euh, moom moo nekkoon sama problème bu gën a mag après nag amoon na yeneen nag yeneen parce que bu ñu waxee manque de confiance amoon na leneen leneen leneen li nga xam ne moo jiitu avant nga commencé am manque de confiance ba nga màggee mais léegi moo tax ba ma ñu ñëwee néegu say deux ma ne génnee ma ci administratrice parce que buñ bu ma buñ ma gisee comme administratrice man sama bopp mën naa bañ a nekk élève man ma nekk comme si man j'étais là comme si man dama bokk ci équipe bi donc euh, duma ma jàng moo mm-hmm. taxoon ma ne de ma ci admi admi pour man ma xam ne man élève la comme ñeneen ñi fi nekk mais sama ñàkk jot moo taxoon ba du may du may participer souvent mais dama doon déglu gars yi di doon euh, setantal lu jël ko def ko tamit li nga xam ne lu ma lu ma lu ma jàngal la man mën naa leen wax ne man jàng naa jëfee na ci hmm. yu bari waaw des na des na hmm. ci euh, professionnellement bu bu bu ma mënoon a amaat encore plus damay jël mais mën naa wax ne sama biiru sëy ni ma daan yaree sama doom hmm. micro bi dafa dagg euh, de maa ngi maa ngi comme ni ko Awa Sow waxee léeg-léeg da ngay delluwaat ci ginnaaw mais tout de suite dangay ngay dellu si waat man su ma jàngalee damay damay dem vers vers xale yi waaw waxtaan xale yi waxtaan bi waaw euh, loo jàngal nga ma faatiment ba nga xamante ne man sama taaw bi euh, yàlla def na léegi la commencé di di kii di régler mais amuma ci benn problème toog naa waxtaan naa ak moom ni mu waree wax ko fan lay teg tànkam wax ko léegi lan moo koy xaar ak yooyu yëpp waxtaan nañ ci alors que su fekkoonte ne dama toogoon fi ma toogoon avant amaana mm-hmm. damay damay mel ni damay mel ni suñu yaay nu ñu yaree rek du dama koy bàyyi mu yew ci internet bi mais mais bu mu ñëwee yuuxu wax ma fekk ma doon nelaw sax ma ma liggéey wàcc damaa jóg toog oh, léegi ñu waxtaan ba ba ma dalal ko ma jox ma jox ko li a jox ba léegi elle est sereine. Ah. voilà sama côté borom kër tamit noonu la. léegi man amatuma problème di di yuuxu di di la di la déranger tout le temps non xanaa ñu waxtaan nii rek avant dama la doon déranger di la bàyyi ay message yu gudd di souvent di la déranger wala ma dem ci waa muur say kër. ku nekk la laay ah waaye léegi waxuma ne waxuma ne je suis du mun a mënuma teg sama bopp fi ma nekkul nag wax dëgg yàlla léeg-léeg dinaa fees ma ma ma dinaa ñëwaat peut-être. am na distance bi mhm. mais léegi damay jël lépp def ko ah, jëlee ko. juub damay. Ah, baal ko jël émotionnellement di ko vivre comme si. waaw waaw effectivement. bu ma juum. damay baalu ak waaye damay njëkkee ci borom bi ba pare ma del ma dem ci ci fi ki ma war a baalu ak waaye bu ma baaloo ak ba pare du ma nekk ci suuf ñu ñu ñu ñu piétiné ma parce que dama def dara loolu man man loolu xam nga loolu kii bi ko tëj avant dinaa dinaa dinaa nekk ci jooy ba nga xamante ne daal macha allah en tout cas euh, pour ma bañ a guddal rek. ma bañ a mhm. rek rek. Euh, wax ne Fatima jaar nga ci ñun fu nekk fu mu ne daal moom macha allah ñun dañ lay ñaanal. xamal ne ñu lay ñaanal on te doit beaucoup mais duñ la mën a fay yàlla lañ lay bàyyi moom moo lay fay. waaw man lu ma la lu may ñaan yàlla yàlla lafal la cat. yàlla lafal la cat ndax wax dafa bari. man man man je suis témoin ki go jëkkër bi nga xam ne dem na ba ne Fatima moo yàq sama jabar ndax gis na ne jabaram dafa changé loolu moom loolu am na dépendance affective xaw ma xaw ma mais man fekkee naa loolu fekkee naa ñi ñi ñi kaas parce que lu ñu gis ci changement seen jabar do kiiwu leen neexu leen neexu leen la personne se sent bien dañoo bëggoon ñoom ah. ñoom ñu continuer di am nga xamante ni yàlla joxu leen ko waaw yàlla dafa li ñuy comprendre mooy da ngay gis ni mm. la plupart ci ñi sant mooy efface-toi tu te soumets à un être humain nga bàyyi nit bi def loolu la neex jigéen il faut que nga jàng leen ni tu te soumets à Allah voilà doomu aadama moom solution mais da am ci moom juste équilibre ak li nga xamante ni mooy respect voilà parce que bu ñu xasee bañ a soumission rek mooy interdit amatul mooy waa ji la teg da nga ko war a tegoo. mais bu la tegee loo xam ne sa bakkan attanu ko koy tegoo mais non tu te que dañ naan kii démb ko wax dafay def tey su ko waxee elle remet en question waaw parce que elle a un cerveau. yàlla na defee cerveau pour ngay réfléchir bu ngeen deewee kenn du bokk ak sa morom bàmmeel. tey bu la góor en erreur ba dugal la ci musiba boo deewee yàlla dana daan joxoon naa la conscience ak cerveau. kon yow tu ne peux pas munoo munoo munoo am excuse. Mm-hmm. du prendre sa responsabilité rek xam ni. sëy bi moom jaamu yàlla la mais bu la nar a yàqal sa jaamu yàlla moom ja yaakaar naa doo ko jëndee sa bàmmeel. déedéet équilibre bu nekk rek. waaw dafay am dangay am équilibre xam nit ki. ñu ngi jàpp suñu bu baax ñu ngi jàpp suñu sëy bu baax. parce que te fais respecter aussi tu te fais ma chérie. voilà boo bañul dara. nit ki ku mm-hmm. la day que danaan kii lu ma ko teg mu tegoo ko. ku tey ah. tey la tey ñu gënee jàpp suñu suñu sëy parce que bu ñu bu amuloon formation bi kon bu mm-hmm. métier dañuy daw. bien c'est tey tey ah. la a toog tey la ñu gën a jàpp suñu sëy te tey la mm-hmm. suñu sëy bi gën a réussir. parce que tey xam taxawee. parce que man Fatima mën naa wax ne bu ma amuloon confiance en bu tey bii kon man sëy bi jeex na parce que ña dinaa doon dem. mais ah, mais ko am euh, kii li nga ma jàngal. tax na man am force toog sama kër gi. sa problème waaw mën na lijjanti sa problème te doo ci dugal kenn. bu ma amee problème léegi damay jéem a régler sama problème man kese man ak man ak sama borom kër. waxtaan mais loolu mooy sutura gis nga bu dul loolu nit ñi dañ lay xamal di la toogee fu nekk te duñ la lijjanti sa problème. lool la gis nga nag li gën a metti ci sénégalais mooy bu demee ba gisatul xamalatu la dara ci sa problème rek day am lu ko naqaari day frustré wu. voilà parce que day xamal di la ci xeeb. mais une fois mu dem ba xam ne yow tu es bu xamee ni ah kii ndekete Fatima moo fi jaar parce que Fatima moo koy dimbali léegi ba muy autonom hmm. nit boobu bu nitewul day am problème. parce que danaan man kat Fatima xëy na am na lu ma yàqal wala fekk na c'est pas ça. man dama bëgg jigéen ñi autonome. xam nga su fekkoonte ne yow lu ñuy jàngal lu bon la. kon hmm. man duma toog sama sëy. c'est ça ne yow yow yow. waxoo ñu génn leen ci sëy bi dang ñoo ne il faut ngeen épanouir ci seen biir sëy man loolu laa jàng épanouir ci sa biir sëy am équilibre pour mën a yar sa njaboot mën a jaamu yàlla mën a liggée sa liggéey parce que sëy bi nekkee ma chérie doo mën a jaamu yàlla sa njaboot boole leen yar ci stress dangay jur ay njaboot yu déséquilibré mentalement voilà sa xel dina professionnellement doo mën a nekk boo taxawee ci julli di nga mën a di nga am xal bu dal doo fi nekk am fit buy fëtti fëtti fëtti doo xam li ngay jur. Ah, jigéen ñi dañu sonn jigéen ñi dañu sonn ta lan moo leen ko teg ragal ragal affronter problème. ragal problème man dama ragaloon trop. dama ragaloon trop wax wax li li nekk sama xol dama ko ragaloon léegi dama koy wax avec avec sagesse. du ma nekk fi sax di di ah, def kii ba ba problème bi dama ciy génn. dama ciy waaw loolu la kon xam ne ma ma tàggatoo ak yéen. parce que comme macha allah kontaan nañu waaw ma wax loolu nitu guddi baaxul ñun dañuy liggéey guddi waaw. <laughs> waaw dégg nga la da ngeen di liggéey guddi nitu guddi moom sénégalais. bi joola joola wolof moo tax buy wax day wax yenn wax yi ñu ne ma. waaw maaleykum Khady Diédhiou aywa allez allez. <laughs> kooku <laughs> ah, ah, jiija. waaw xar jiija allez waay allez. waay jiija dina dina ma rey. xoolal xool jiitu coro coro neen dafa bëgg a dugg bu dee mën ngeen ko may mu dugg bu dee yàq bàyyi ko mu dugg man sax damay ñëw julli ji sax. bàyyi yaay mujje tey yaay mujje eh bu leen ko bàyyi mu dugg tey coro mooy mujje. maa ngi tey <laughs> maa jiitu ubbi. waa kon maa ngi bëgg ci lien bi di di bës di bësaat rek. <laughs> bu mu nekk dernière personne. <laughs> kan kii. Coro. ah kon Coro ma ñëw. asalaamaaleykum salaam wa maa ngi leen nuyu ñëpp ñu ngi lay fay nuyoo. damay sëggaat rek noonu laay def damay sëgg rek ñu door ma macha allah macha allah. <laughs> mais ubbi nag maa ubbi zoom bi depuis 16h30 maa ngi maa ngi ci lien bi di bës. Badou di yër rek. fekk kenn ñëwagul. macha allah di di yër rek xool. waa di leen nuyu ñëpp di leen ziaraat. di lay Fatima di la di la sant. ndax sant doomu aadama doo sant yàlla. waaw tey bu ñu toogee ba ñeme dugg si di wax. ñëpp di ñu dégg. vraiment donte pareegul sax nag ndax dañuy génn gis nga dañuy dañuy dugg ci génn fële wante alhamdulilah sant yàlla bu baax. di di di kontaan si li ñu dajeeg yow. li ñu dajeeg yow. Mhm. ndaxte comme ni ma koy waxee saa su rek euh, li ñuy ñëw si yow ku si nekk am nga lu la yëkkati. Mhm. am nga rëng rëng réer nga di tourner gauche di tourner droite. jooy nga ba sa énergie jeex wala waaw yaakaar nga ne daal yow sax luy sa solution mooy tax sa sëy waaw billaay billaay waaw moo tax ma déggee sax yenn saa yi nga naan dañ may jiñ taskatu sëy ma ne ah ñooñu de ñu ngi tooñ ndax man de yaa ma ci teg waaw ne su ma ne la ah eh, man de doyal na dem nangam nga ne ma mm. déedéet yeexagul de toogal lii du solution problème dañ koy solutionné si loolu nga ñuy jàngal Mhm. problème dañ koy solutionner. nit du abandonné. Mhm. nit du daw. waaw da ngay daw te doo waaw mu ngi noonu <laughs> te daw tam taxul a rëcc te daw taxul li ñu soxla li ñu soxla ci suñu société ñun foog ñu taxaw. ndax ne xam na ne société sénégalaise boo fa nekkee di sëgg. di hmm? sonn di nga recevoir ay coups yu bari. boo fa nekkee di daw. voilà mu ngi noonu sa dund mooy daanaka yàqu na si si nit nga koy wekk si si si si si lëndami daal ngay dëkk voilà mën naa ko waxee noonu ci lëndam nga ñu jële teg na si leer te fu dëgg nekk moom soxlawul sax foog naa woote fu dëgg nekk moom lu génn si xol daal li ma koy waxee lay dugg dëgg la mhm. ndax ñu si ëpp manque de confiance moo nekk problème bi gën a rëy foog naa ne si mhm. waxatuma laak di problème waxatuma laaj di di di di nit di la abal noppam ne la waxal li nga bëgg a wax du la jugé du la xas du la du la du la te soo waxee mu wax la ne dund lu gën a pire li nga dund loolu mooy rek dalal la lu mm-hmm. bokk la coach yu bari ndax ñu ci bari li ñuy ragal ci famille ñu ci mel ne ñun dem coaching rus am gàcca ndax coach bi na la wan ne yow kat lii rek du dara ndax xëy na moom jàll na ci étape boo xamante ne yow tolloo goo fa Mm-hmm. waaw looy jooy mu ne la ah di dara xeebal la sa problème nga découragé mm-hmm. te loolu ñun amuñu ko si yow macha allah bés bu ñu toogee waxtaan ak yow nga mel ni dañ bokk ndey ak baay ñu ne dañu mës a gisante sax yenn saa ñu waxtaan ba fàtte ne sax mm-hmm. waa comme ni koy waxee bu ñu nee trente minutes dem deux de temps trois heures <laughs> <laughs> bàyyi waaw kon sant yàlla. jeex na di woo femme ñëpp jigéen ñëpp ñu xam ne dëgg yoonu dëgg mu ngi nii. waaw yoonu dëgg li ngay wax mooy mooy sunnatullah mm. développement personnel ku ko amul. Mm. sa diine mënul mat. naan diine yombul. diine yombul bi dina yomb waaye jàmbaari rek ñooy des. jàmbaari rek ñooy des mu ngi euh, effectivement. àddina bi problème se yi moom bokk na ci natt yi gën a mag yàlla di natt doomu aadama waaw kay bu fekkente ni li nga yaakaar solution bi rek mooy tas hmm? du du du tas solution la de waaye mooy dernier recours nag mooy wallaay c'est tas may la jàmm sax solution la am jàmm soo soo feebaree sax ci ci néegu lëndami ngay lool ndax ndax boo desee affronter notre réalité boo xam ne après est-ce a ko pare ñëpp a ko pare boo natee ci balance da ngay nooxaat sa ngeen toog que situation loolu la ñu lislaam jàngal situation bu am xoolal ñaari bu ci tane moromam mm-hmm, bi nga xam ne mm-hmm, mm-hmm. a mooyee gaañ bi nga xam ne moo gën a mooyee ay lor tànn ko mais doo tànn de ci sa bopp après ngay jeter faute bi sur les autres mu ngi noonu nag mu ngi noonu nag mu ngi noonu nag di wax daal li may wax daal mooy jigéen ñi lañ ñëw. loo tax coaching collectif am am am am solo. parce que da solo rek musiba. mais nga ñëw dégg fa xeetu musiba yoo xam ne da nga mi ngi noonu mi ngi man du dara. <laughs> da yokk mun sax ndax da nga naan man de lii du dara ndax lii ma daloon. kii de jàmbaar la loolu di la motiver. xam nga interdépendance boobu. li ñu dund dundoo na sa eh, jeex na motivation boobu ngay am. di dégg ci def ah. parce que doole daal relativiser doole mhm. gis ni mhm. sincèrement man war naa mën a def mieux war am volonté mhm. volonté voilà loolu di nga am volonté ko di nga am tamit courage di am courage wax sa problème di nga am courage partager ci li nga xamante ne avant yow comme li ngay wax rek li ngay xool si sa morom rek moo nekk si yo manque de confiance boobu moom nga doon projet si nit ñëpp ba da nga naan ah baa duma sama sama yaa ko laal waaw mi ngi ah. noonu nag wala te lii moom dafay wane rek démb yi tooy na yaram mm-hmm. yee ndaw daw ñi ñu dugg ñi ñu ngi ñu jooy seen rukk parce que demoon na ba nekk famille mooy ne dëgg rek ay dëgg waaw diine mooy dëgg sunna al mm-hmm. alquran ak sunna mooy dëgg développement personnel mooy dëgg waaw ay sa ayibu bopp ngay toppatoo hmm. yàlla moo ñuy tax a jëf yeex na yàlla ñu noonu surtout que yarum xale yi loolu amoon amuñ amuñ sa ndax ku ne xam nañu suñu société lan lañ xam dóor lañu xam saaga lañu xam dénigré dàq ci mbedd ma sonal ngeen ma xale yi yuuxu yi nangam nangam dem leen seen toog ñun ci suñu dal foog ne loolu mooy yar ndax loolu lañ ñu yaree waaw nga ñëw nag war nañu loolu du yar mën yar ci si positivement mën nga yar si si mhm. dendale fi tax sa dënn mën nga yar si mhm. si si si si si neexal sa njaboot ci dalal leen mhm. te ku ci nekk foog naan sa kër tey dal na boo duggee sa kër tey am nga paix intérieure waxtu julli jarul dóor xale ñëpp dinañ jóg julli xam nga waxtu teg téléphone bu jotee ñëpp dinañ dem teg seen téléphone branché ku ñëw toog bu jotee te li nga xamante ne danga daan ñett ñett ba ñu yëpp ci mel ni maanaam bu ñu maytuwul suñu doom yi dinañ bañ diine bi suñu maytuwul surtout ñi nekk à l'étranger suñu maytuwul xale yi dinañ jàngum alxuraan dina nekk poids ci ñoom suñu maytuwul dinañ dina nekk poids ndax dañ naan lii dafa metti julli rek nangam nangam ñun sëgam mag ñu bari sax comprendre guñ suñu borom waxuma laa xale boo xam ne moom mm-hmm. waaw day rek xamul ku muy jullil mm-hmm. te loolu yëpp yow yaa ñu si ànd yow yaa ñu ànd si si dal yow yaa ñu ànd si tolérance yow yaa ñu ànd si ñu xamante ne voilà yërmande lien d'amour ak sa borom tisi ko ak say njaboot noonu am ci sa biir xol nga mën ko propager à l'entour de toi waaw que amoo relation bu dëgër ak sa borom doo mën a yërëm doomu aadama doo yërëm sax sa bopp sax. doo yërëm sax sa bopp nag sa bopp. waaw da da ngay da ngay naqarlu yu bëri fu la fekk yaa ngi. remettre sa bopp. billaay di jàmbat di jàmbat fekk na am nga lépp. Mhm. fekk nga am nga lépp am nga lépp yàlla may waaw yàlla may na lépp yaa ngi njaboot yaa ngi liggéey sa oto yaa ngi sa kër. yaa ngi am sa yaa ngi am loo lekk. waaw sa yaay ngi dund sa papa ngi dund sa te yow tu n'arrives nga ah, xelaw sa xel mu daal paix intérieure paix intérieure nag jar na ko rawatina soxna yi ku ñamul fii mooy làmb daj daal làmb daj <laughs> mooy loo xamante ne làmb daj la du ay du ay naxe du ay du ay du dara lëndëmu si ndax bu lëndëmoon di nga làqatu c'est lu leer daal kenn du ci neexal kenn ndax man ku ma woone ma kaay wax ci loo xamante ni ne bëgguma ci wax dama wax ndax fii moom du leen ci leen dugg leen ci leen mu ngi noonu mu ngi noonu mu ngi noonu te ñu ci nekk yaa koy sentir waaw lu nekk yaa koy sentir te mu doon lu jafe xam naa ne muy man muy ñi ma ñi ma ko sekkal ñu ci bari moom wax si si yomb leen sax diis na leen waxuma laa wax loo xamante ne danga naan day wër àdduna mais dëgg rek ay dëgg te defal nga ñu loo xamante ne amul fay mënuñu la fay di santaat yàlla di wax euh, soxna yëpp ñu ñëw dugg si gëstu eh, seen diine surtout <laughs> moom kañ xam moom kañ dina ñëw moom kañ dina eh moom kañ waaye sant rek sant rek sant sant xam ne histoire boo xam ne si dëgg rek ci dëgg rek ne la dëgg ngi nii nga bëgg sëgg mu ñokke la ne la mu la xoj la ba nga ba nga sëggi ne waaw kañ d'accord naa loolu sant yàlla la. wala woo ñu si caaxaan. woowoo ñu si si si si jëw woowoo ñu si ñaq fayda yoo xamante ne dañuy tardé. voilà sa bopp Mhm. am na benn soxna di ko wax mu ne boo xasee ba topp sa bopp di démonter sa bopp pièce par pièce yow da ngay mhm. fàttali ne sax ñu existé nañu si kaw suuf doo tal keneen waaw parce que dañuy gis ne yow ndekete conteneur ak sa kër jóor yi nga gàddu yow da ngay fàttali ne mm. am suñ la fekk yaa ngi càmbar sa bopp yaa ngi càmbar sa bopp ba dootoo tal problème voilà sa bopp rek si loolu rek nit ku xamul boppam daal mënoo joxe dara te loolu nañu wóor delloo delloo ñu suñu bopp mhm. ñu xam suñu bopp ñu xam ñun ñooy kat ñu xam ban diine lañu bokk muy chance ñu dugg nag si développement personnel boo xamante ne moo ñu dalal tey suñu néegu say moo dalal suñu njaboot moo moo dalal képp ku ñuy jëflanteel rek tey ñu ngi gis si yow suñu bopp ba nga xamante ne duñ la dinañ dinañ la ragal a gaañ dinañ la ragal def lu la metti ndax dinañ xam ne waaw mu ngi noonu si li ngay wax loi d'attraction yi rek waaw mu ngi noonu da ngay wax ak def mm-hmm. ko mu ko def wallaahi wallaahi nga am problème wallaahi la bañ wala dafa genre dafa soxor dafa genre fekk am loo ko def xëy na bu mu naa ko bàyyi mu ngi noonu mu ngi noonu lii daal mooy tënk sa bopp rek man de xam naa liggéey wàcc ñëw nekk si li nga war a nekk rek tal say julli tal sa njaboot tal sa kër foog naa ne amoo jotu leneen wax dëgg yàlla loolu rek foog naa ne mooy muccal doomu aadama si jamono ñu nekk ni te ci loolu ñun la jàng si cinq d macha allah yaaguñ si yàgg nañ waaye am nañ ci avancé yoo xamante ne daal dañuy sant dañuy sant sant yéen ñëpp yéen ñu ko bokkaloon ñëpp macha allah liggéey bi am na solo te maa ngi woo moom mbokk si seen développement personnel concentré wu seen njaboot concentré wu si seen ménage concentré wu si seen liggéey concentré wu si seen diine waaw loolu daal ci lañ leen di woo ndax ñun daal mu noonu gis nañ suñu bopp. tey bu doon si c'était à refaire tey jii tey jii woon mu tëj voilà dañuy fayaat ñu continuer ay séance ba nga xamante ne daal mu ngi noonu dinañ ko jàllale partager ko suñuy famille partager ko suñu fii suñu entourage ba nga xamante ne day law daal. dëgg moom waaw dëgg daal day day law rek waaw ci gàttal loolu daal man laa doon daal na femme yëpp ñëw dugg si loo si fay jar na ko lu si nit fay jar na ko amul prix intérieur a gi nii waaw coach dalal ak jàmm ma ko dalal ak jàmm yegsil kooku sama salaam ñu dégg pourtant xoolal sa kii sa micro ñu ngi lay dégg bu baax sax coach fi ñu ngi ci jàmm kooku xarit Diouf la woo ci des nañu micro ñi nga xam ni sax wuyu depuis mooy wax ci suuf na coupé micro wala xarit Diouf fi nga nekk dafa amul bruit. non non non non amul bruit. ah bu amee ku ubbi micro na parce que ñuy dégg li muy wax yëpp te day jaxasee kii bi. Mhm. waaw. asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa euh, parce que Khady Diouf moo fi nekkoon. <coughs> ah man la Fatima Diatta. Ah, damay boo leen ma gisatulee rek balaa ne dafa am ku <laughs> <laughs> soxna Fatima mbaa ratew ma lu bari. ah xaw na xaw bi mu commencé xaw na yàgg de. xooluma sax temps bi maa ngi concentré wu si liggéey bi. fi jaar am na ñu fi jaar ñu bari de waaw. dëgg la temps bi dafay jaxasoo pour man la war a commencé mais am na dama ko calculer. ah d' waa quatre heures Sénégal lañ ko defoon de. wu quatre waaw ma looloo tax ma ñun kon une heure de temps la mais. Mm. midi. parce que quatre heures de temps moo nekk suñu diggante. suñu diggante ak Sénégal seen diggante ak Sénégal. waaw. ma ni ko yegg si la jàmm. macha allah thème bi lan la lan lañ lan lañ waxagum. waa tey ñu ngi ci cérémonie de clôture bi rek pour euh, ku nekk wax sa expérience ci euh, bi nga jëlee ci cinq dimension bi. ñi nga xam ne ñoo nekkoon si première dimension première euh, saison bi ak deuxième saison bi tamit seen différence buñ ci remarque am na différence wala dañ naan ak ah, Fatima moom li ñu jàngaloon fee rek moom lañ jàngalaat fii waaw li nga xam ne daal mooy seen euh, expérience ci ci li nga xamante ni mooy néegu sëy d'accord man prom expérience bi ma ci am changement catégorique laa gis si sama dund mm-hmm. surtout si Uh, néegu si sa si sama néegu sëy mm-hmm. premier um, néegu sëy bi um, ubbi na sama xel bari jàng nañ ci tam lu bari mm-hmm. deuxième bi yéen ci répété tamit dafay tax daf ma dimbali ma gën a mokkal mm-hmm. leçon boobu te ba pare am na yu bari yu gën a complexe yoo xam ne ne boo boo boole nga ko si cinq d bu bees bi. Mm-hmm. man nag duma def lu dul ñaan parce que dama kontaan. Mm-hmm. si sama bopp bien que ne li ta mu di wax maa ngi jël garab ba léegi. mais daal mm-hmm. <laughs> fi ma nekkoon ak fi ma nekk léegi nii dama naan alhamdulilah. sant yàlla. ma mën a sama vie. Euh, mm-hmm. si sëy bi ma mën a also concentré wu si samay doom jox leen amour bi ñu soxla ma mm-hmm. mën a concentré wu tam man si sama carrière mm-hmm. parce que yow bi ñu xamante mm, toll naa foo xam ne wa nekk di liggéey dëgg la mais nga recadré ma wan ma importance su am euh, indépendance financièrement dafa mel dafa am ku ne déggul dé <clears throat> yéen ngi dégg pourtant son bi baax na de Mouhamed yaa ngi dégg son bi. waaw man maa ngi bu baax. ah kon si ñoom la bàyyi leen foofu <laughs> nañu xool seen <laughs> allah. financièrement lu point bu am solo la daal pour jigéen ñi góorgóorlu am mm-hmm. indépendance boobu. parce que boo nekkee yenn waaw parce que boo mm-hmm. nekkee yenn façon góor yi. bien mm-hmm. que ne def li leen war mais am na yoo mm-hmm. xam ne yoo si sa bopp yow yaa ko bëgg a def yow yaa ko bëgg a defal sa bopp def fi empreinte si sa dund da nga bëgg a saraxe yenn yi da nga bëgg a def saraxatul mm-hmm. jaare yoo xam ne ne ah, da nga bëgg mu way dëgg la boo amulee ah. indépendance boobu doo ko mën a def man daa dam doo ko mën ba pare ah. ràññeel nga la wan nga ñu mm-hmm. góor yi nga xam ne ne ñu bëgg noot Ah, mu doon lu am importance mm-hmm. parce que tamit jàng nañ suñu diine xam nañ yenn yi mais mm-hmm. des fois ah, culture bu ñu nekk daf ñuy obligé ñu topp suñu jëkkër yi mën naay bàyyi ma <coughs> lu leen neex <laughs> waa kay yekk waa kay bu ñu jógee bu ñu jógee ne waa da nga war a soumis si soumisif fàtte nañ ne soumission yàlla rek lañ ko war rek lañuy soumettre waaw mm-hmm. ah, soumission moom dafa metti nee naa soumission dafa garaaw sax. ndax yàlla rek mooy nga bu bu diglee kenn du ko ne lu tax. le pourquoi kenn du ko laaj. waaw loolu moom yàlla rek ko am. waaye doomu aadama heure bu diglee dañ ko war a def ci balance jàmbar ko xool. Ah, exactement heure bu heure bu ñu nee sëy rek mooy jaamu yàlla la te jaamu yàlla boo deewee ku nekk ak sa bàmmeel waaw. exactement. jaar yooyu ñun ngi wax en français ñun làkk ñu français de olof la ñuy làkk. <laughs> non moom laay wax. wala ñu pare. lu ma gën a kontaan loo sax mooy xale yi yow li ngay comprendre seen comportement yi. waaw nu koy mën a expliquer nu ngi leen mën a jàppale. Mhm. ubbeeku mën leen jox. bunt boo xam ne ne. waa kay bunt boo xam ne ñoom dañuy ñëw ci yow. wax la li ñuy def même bu fekkee nekkul yàlla sax mais dañuy ñëw ci yow ubbeeku ne la ah da yaay confié def naa léegi lii mhm. léegi man nag ma am jàngat boo xam ne ne mhm. mun naa wax ak ñoom ba nga mhm. xam ne ne du ma leen blâme si ah, loolu wan leen que ne yar boo ah, parce que xale boo koy doo xale boo koy doo dalay ragal te du la wax lu bëri te du la bëgg tamit amour bi war ci diggante yaay ak doom sax man ñaata nit laay recevoir ci samay coaching ñu ma naan dañu am problème ak seen waajur te gis nga li gën a metti te ñu gën ci bàyyi xel mooy nit ki à chaque fois yaay wala papaam yar ko yar bu violence nit bi du mhm. mun a du mun a am relation bu baax ak ak jëkkëram bu dee jigéen la bu dee góor la du mun a am relation bu baax ak jabaram parce que image figure figure paternelle wala maternelle daf mooy image bi lay wan jigéeni àddina bi yëpp. yow tey sa yaay bu baaxee da naan jigéen àddina bi dafa baax. Mhm. sa yaay bu jàpp ni jigéenu àddina yëpp dañoo bon du coup da ngay des da ngay daje góor mu naan la jigéen ñi dañoo bon jigéen ñi dañ pourtant yow xamoo ko xamul la <laughs> mais ni muy wax ci jigéen ñi c'est tellement sale que yow tu te demandes kii mooy problème loolu la parce que li mu dund. parce que tey nit bu naan jigéen ñi dañoo bon rek mooy kooku na xool yaayam ak ay sëram nan la nekkee ak ñoom. parce que góor bu normal dafa war a bëgg yaayam ndax góor dañuy wax ni d'habitude góor xartu yaayam la jigéen xartu papaam la. tey jigéen bu fekkente ni danga nekk ak sa papa mu ngi xas sa yaay wala mu ngi koy dóor wala mu ngi koy manqué respect. wala mu ngi dem di wër de gauche à droite di doxaani ngeen baal ma ci wax ji jigéen boobu bu màggee image yu góor bi muy ancré ci moom du baax. te malheureusement day dem tombé si góor bu mel noon parce que jàpp na ni papaam ni mu mel loolooy góor. Mm-hmm. te bu duggee ci góor bu mel mu ngi noonu musiba bi koy def c'est normal. te yar bu bon fi mu mën a yóbbu doomu aadama baaxul. baaxu moo tax euh, yar am solo lool ci nit. te ñu ci bari tey ci jukko yi ñuy wax tey di xas xale yi wala di xas di wax sëy yi ni mu mel lépp ci yar. loolu la surtout loolu yar bi xale yi. parce que li nga ko waxee rek relation bi ñu gis ci seen biir kër ak mm. relation bi ñu si seen parents yi mm-hmm. ñoom tam loolu rek la ñuy xam bu ñu màggee tam loolu rek lañu ñu mën a wane wallaahi moo tax développement personnel mu doon loo xam ne ne lu am importance la nga boole koog sa diine nga won say njaboot que ne yàlla daf ñuy teg nattu wante tamit mun nga mm. ci jëlee nga defar sa bopp bañ a toog rek bañ a ah, yàlla yàlla lii moom lii la ma teg mënuma ci dara. waaw ah, te ba pare dama dama ah, xaw ma nu ko waxee en français dama iga li ma jàng si yow tout temps dama koy partagé. nit ñi mhm. des fois damay am xarit boo xam ne day nekk si situation mais mu koy expliqué yéen ñi mu ne pourtant wax nga dëgg de. <laughs> Mhm. te te ndeysaan nag dégguñu langue bi. ndax yeneen dëkk lañ jóge bu du woon loolu suñu ma mën leen a booleeg ci yéen mais impact bi daal dafa rëy dafa rëy parce que yow liñ ñuy jàngal après ñu ñu tam dem di dimbali ñeneen wala di leen yedd ba pare suñu doom yi tam defaru ci ñoom tam mën nañ ci defar bu ñu màggee ak seen njaboot moom daal xamoo li nga ji dafay law rek te yàlla la